asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi asalaamaaleykum yow ñu di bégg seen émission doole xel xam nañu na mën nga ñu lool lool lool waa ñoo raw fuuf comme ni kay koy defee saa su ne tey nag ñu ngi fii Colobane ak si benn coach boo xam ne kenn dootu ko présenté ndax képp ki saan émission doole xel xam nga ne coach bi c'est le plus grand des coachs ñu ko woowee coach Body Max coach ñu ngi lay nuy di la char maa ngi leen sant waa Equivox donc di leen dalal fii si Colobane ñi weccoo xalaat ci sport bi xale yi jariñu ci Sénégal jëm kanam. waaw ah, coach lu lay njëkk laaj mooy coach fan nga jaar avant Bodymax di nekk Bodymax fan nga jaar ba yegg si fii nga yegg si fii la fan nga defee formation ak ah, mooy sa spécialité si si sport bi. bon comme ni ñu koy waxee rek man moom ku ma xam ci musculation nga ma xamee donc am naa ci nag benn sens bu nga xamante ni bu ñu nekkee xale yi ba ñu gën a nekk xale. Euh, ñu ngi koy wax Thiam Hercule Père Thiam ñoo ko ñun dañoo judd fekk Colobane Sall donc moo ñu jox amour bi donc fa lañ daan dem di foo boo xoolee am na benn photo bu fi nekk fii ci salle bi ay Père Ndiouga ay Père Birahim donc salle bu Colobane la woon waaw donc Thiam Hercule moo ma jox photo bi donc am na jaar-jaar ci moom bi nga xamante ni ci moom laa jaar donc àdduna di dox ma jóge fi dem armée jóge armée dem IFAN di entraîner après ci la ma yàlla boole góor gi Habib Gueye donc mu jàppal ma defal ma musculation bu bu am solo beneen maître bi ñu ko wax maître Rhone kooku moo ma jàngal l'anatomique maanaam mbirum yàq donc ñooñu daje nañ ci man ah, may profité du nuy di ñaanal père Habib Gueye ah, suuf sedd ci koom yàlla xaree ko ajana donc du ko ñaanal néewu jul yëpp du ko ñaanal sama papa Souleymane Seydi suuf sedd ci koom donc je pense que foofu laa jaar ci sport bi donc noonu daal laa duggee ci sport bi ba jëmu yàlla tey fi ñu toll nii quoi. loolu mu nekk parcours bu am solo gis ngeen loolu mais coach tey dama bëgg ñu waxtaanee musculation ak ak lutte maanaam musculation ak bëre mbër na la war a entraîner musculation. est-ce que mbër dafa war a ñëw rek yëkkati ay weñ yu diis est-ce que mbër dafa war a ñëw rek salle bi dugg yëkkati lu ko neex par dama yoonam mbër na la wala entraîner musculation. bon loolu loolu dafay nekk benn question boo xam ni yomb naa tontu yomb loo tontu waaw ci boo xamee parce que xam nga tey footballeur bi wala basketteur bi wala athlète bi tu sais ni muy ni muy entraîner salle ak lutteur bi dafay am différence bu bëree bari bëri parce man. jàpp naa ni ne entraîneur moo gën a jafe ci athlète. lu tax lu tax entraîneur mbër gën a jafe. waaw li tax entraîneur mbër gën a jafe mbër lu mu laaj moo bari xam nga tey footballeur bi kenn laaju ko nga jël poids kenn laaj ko ngay dóorante xam nga footballeur bi dañ koy laaj mu gaaw yax yu nangu xol bu baax même basketteur bi noonu même athlète bi noonu mais mbër li daje ci moom moo xaw a compliqué mbër danaan la jëlal masse musculaire. mbër da naan la da nga war a gaaw yaa ngi dégg donc loolu yëpp daje ci mbër boo xoolee li composé li tax ñu naan mbër seen sport moo gën a metti moo loolu loolu loolu lu spécial la lu loo xam ne ci salle musculation waaw mbër daa am li mu ci war a laal ak li mu ci war a laal waa kon du benn quoi non du benn moom léegi noo de suñu mbër yi nga xamante ne ñoom dañuy dem Europe jànte na na foofu musculation te coach yooyu entraîné coach yooyu noonu est ce que réellement xam nañ luy bëre xam nañ bëre lu mu laaj est ce que mbër yooyu noonu carrément bu ñu dem Europe lu ñu bëgg deen ko am carrément si bëre bi ak bu ñu fay def waaw xam nga loolu man mun naa am chance su tontu ci parce que jële naa fi benn athlète yóbbu ko France muy dige ak sama partenaire yi ma nekkoon foofu saa yoo ko bàyyeek tubaab bi bu ñu liggéeyee vingt minutes trente dana ma kaay kii yaa ko mën a entraîner man mii di wax dañ may laaj système bi ngeen di bëree pour ñoom ñu mën a def dara ci athlète bi donc day am benn benn ñàkk xam bu baax nu ñuy entraîner mbër da leen daal ñoom te xam nga Sénégal moom dañoo xaw a complexe ci benn côté tubaab man boo xoolee sama salle bi ay tubaab yu ñëw fii ëpp yi fi ñëw su ñu waxantee dëgg. loolu foo ñu dugg si sa relation internationale moom foo ñu dugg si. donk donc da ngay gis sax mbër bi daan ñu ne yóbbu ko États-Unis yóbbu leen ko France ñu dem jàppale ko. ñoo ñooñu di wax loolu loolu weesul ñàkk complexe parce que mbër yi seen coow li coow li cinq minutes la ñuy def ci géew bi bu baree ba bari léegi un coach mënoo assurer mbër cinq minutes bu mu bëree ñu ne fa mu dem extérieur fay. complexe la du dara te lii ma lay wax nii su ma juumul ça fait ans wax naa leen ko fi yéen. dëgg la 10 ans ci ginnaaw wax naa leen man li tax tooguma Europe su ma neexoon damay toog comme ñëpp. 10 ans ci ginnaaw waxoon naa li tax tooguma dama bëgg imposer benn style bi fi ne mooy tey jamono doxaat na ba ñu toogaat xam nga tey mbër yi fii jógee di dem extérieur di entraîner ñi fi mën a fay coach matuñu 5. parce que 30 000 par jour nii gars yi kan moo koy fay science te gars yi li ñu comprendre lul Europe boo fa demee salle boo gis ñëpp fa am accès ñëpp a fa am accès mais doo am accès ci coach parce que munoo fay coach mais man tey bu ma la invité woon Europe nga ñëw man lan laa mun dem inscrire la salle lépp ñëpp mun nañ ko nga ñëw sama kër ma lay jàppale lekk naan bi fi ngay tëdd loolu mun naa la ko jàppale mais mu munuñu la munuñu la fayal coach loolu maa la ko wax fii munuñu la fayal coach. fa ca foofu ñu koy def sa daal ndax coach yi dafa seer foofu. waaw mais foofu xam nga tubaab moom danga koy fay. te fii mbër bi moom di question sax danga ma laaj ci sport. mais fii suñu athlètes yi parce que dafa mel ni boo naan mbër yi damay damay am côté bi may waxee mais fii suñu athlètes yi ay complexe lañ. maanaam su ma la déggee daal ñoom lu ñu nangoo fay. coach européen yi nanguñ ko fay fii coach Sénégal. mooy mooy dëgg man Sénégal laay gis nga yor mbër mbër boo xam ne amagul dama lay jox xam nga booy wax da ngay def damay lay jox exemple man samay wax loolu la dama koy jël ci Mor Kankang Mor Kankang bu muy xale di foo nekk xale bu ndaw di foo laa la wax sama saal bi bëreegul arène dafa am comportement yi mu yoroon ma dàq ko saal bi. Mor Kàngam fii la génn toog di jooy jooy met li ma lay wax man ay preuve lay joxe kii di caat bu boy bambara ak dige ñoo doon nax xale bi parce que au lieu mu demee fii la toog di jooy ci daanaal dige ak caat kii daa ko def champion am na loo gisoon si moom cest à gisoon naa benn jom bu nekk ci moom ak bëgg man ma am xam-xam boo xam ne wóor na ma ne bu ma ko fa jaarelee dina egg fii si làmb Mor Kankang fi muy egg fii ci làmb onze combats onze victoire te Mor Kankang saa yoo xëyee yaa ngi dégg mu ne amul jàppale kon lu ko indi fii parce que am na sens Mor dafa teel am coach Mor dafa teel am coach léegi da ngay dégg xoolal li ma lay wax non Mor Kankang nañ ko yóbbu mu dem entraîné yi uti doole uti lii ana Maxi mi fi nekkoon Mor Konkam mu nekk xale onze combat et onze victoire te doo gis benn journaliste bu lijjanti kan mooy entraîner Mor mais ñi ngi lijjanti tubaab bi koy entraîner ëllëg ay complexe lañ ay complexe lañ fii li fi nekk kenn kenn xamu ko donc benn côté comportement coach yi ni ñuy melek ak yi la neexul ba neexul mais man ku ma gis Sénégal da nga dugg ci ruq bi koo gis ma nekk moom fii nga ma fekk musuma dem esat daw ma kër mbër daw ma ëppan presse mbër boo ma gisee fii nga ma fekk su ma la entraîné boo ñibbee toog naa jàpp sama ñaamul maanaam yow daal côté professionnel daal nga lijjanti daal ma jël sama image du ko taf ci mbër musul am musul am ndax yow du woo benn mbër kese ñu ngi non moom laa lay wax rek niveau professionnalisme bi laa lay wax cest Euh, coach yi ñoo war a am yenn comportement yi nga xamante ni man Tiro Sama nii rek am na mbër bi ma waroon entraîner nii ci combat yi mag yi ay millions laa ko facturé bu ñuy négocier man leen du ma ci wàññi cent franc sinon entraîné wu ma ko mbër bu mag du ma nekk fii sax du tudd ay turam jaru ko man dama am lu ma gëm salle bi def na 19 ans maa ngi tëju fii daw ma fenn léegi yow Salif dem na 19 ans ba tey yaa ngi si ruq bi ak yow sa relation extérieure yi nga am yëpp gars yi nu def ba gis la ba xam na ne yow yaa ngi fii si ruq ba di la si fekk si bon yàlla mooy mooy boole ak ay nit quoi donc euh, lenn li <coughs> dama am ay ay ay ay ay mbokk yu nga xamante ni ay frères ñi ngi France donc am ñoo xam ne dañoo bëgg a ñëw fii vacance léegi bëgg a ñëw fii vacances bi dafa am ay sportifs yi bokkoon donc ñooñu fi bokkoon bi ma ñëwee ñu entraîné ma boole naa samay nit yàlla def nii ma continuer di liggéey ñoom parce que ñoom ñi ngi yëngu ci manaam ñoom sport yi ñu def moom ñëpp lañuy def dañuy def MMA dañuy ñii day def kii lépp lañuy def donc ma ne leen lii mën nañ ko bële ak musculation bi donc bu ma commencé liggéey ñoom ñu xam ni xam nga bu njëkk xeexkat da naan la bu def musculation da ngay da ngay diis waaw man loolu dama gë waaw man loolu gëw ma ko donc efficacité bi may liggéey ñoom dem nañ bi gis seen bopp donc boo xoolee États-Unis am naa fay partenaires yi fi nekk ku ñuy wax euh, grec donc mi ngi à Miami photo moo nekk nii sama t-shirt la sol ci biir saalam defe naa moom contrat trois ans donc ñi ngi doon liggéey ci projet bu bari boo demee Canada ki ñuy wax Jocelyn Pierre nekk na sept ans champion du monde MMA kenn mënu ko gagné. coach dama bëgg ñu toog national ba pare avant ñoo dem international. coach dama bëgg dama nga wax ma yow yan mbër yan mbër nga entraîné carrément yoo xamante ne ay mbër yu mag lañ ay champion lañ yor nga leen fii ba dara dul dara ba léegi nii. bon Birahim 2 ah. Birahim 2 premier combat bi mu koy entraîné moo Saaka Joor la woon loolu yàgg na de. waaw mooy bi muy daan Saaka Joor. boobu maa ko préparé. bu muy bëreeg nees. maa ngi ko préparé Jules Balde maanaam depuis combat ak euh, Sakajor combat yi Birame presque yu mu yu yu mu kii yëpp maa ko entraîné fii ci Colobane gi nii waaw Birame naa Zallo dernier combat bi mu bàyyi maa ko préparé Rock Mbalax borom technicien bi borom 1000 prises yi. waaw defe naa bi làmb méttee rog mbalax man bëri max maa la ci génne maa la entraîné contre Ousmane Diop contre Bathie Seras contre Issa Pouye ak mbër bi nekkoon Guli Faale damay faral di fàtte tur bi quatre combats yooyu maa préparé rog mbalax indil ko sortu làmb bu extraordinaire bu ñëpp Sénégal bi gis caat bu booy bambara bi muy xale ci man presque bu muy bàyyi làmb maa ko entraîné entraîné naa DJ Euh, entraîné na euh, Eumeu Sène ak euh, Eumeu Sène ak la de Guiers combat boobu maa préparé Lac de Guiers mu koy nuyu en passage entraîné naa Pape Sène ah Alou Badou naa Boy Bawal Ndoof maanaam mbër yi ma entraîné moom. bëri na quoi bëri na. bëri na trop wax dëgg yàlla donc. jàpp ma ni am na coach bu mu fi expé expérience su mbër yaaka yaakaaruma ko daal vraiment yàgg naa trop vraiment waaw te man dama am sens ki ma formé mii góor gi Habib Gueye moom mbër bu ne mënatul mu tegaat la ci làmb te Sénégal bi yëpp xam na loolu ci moom mbër bu ne jeexal na Habib Gueye da lay tegaat ci làmb moom daal mooy defarkat bi ku yàqu rek moo lay defar man bi ñu may bi ñu may may jàngal musculation ki ma jàngal ku yàqu la doon defar waaw man nag dama mën ku yàqu ku ne baaxul ñooñ laa gën a aay mais xam nga tey mbër bu yàlla may doole may ko moyen mu nangoo génne yomb naa entraîné. Ah, dëgg la naa entraîné kay. xam-xam lu mu ndaw ndaw nga nga def preuve mais man mbër bu ne mënatul damaa ay ci loolu dama lay indiwaat. ah mais gannaaw yow Sénégal njaay nga nan ngaa defar ba sonn de. ah leen de xam naa. ay ñoom elage war nga leen defar de. ah Rock Mbalax laa lay wax rek moom moom dama ko yëpp Rock Mbalax. ñu ko doon daan ci làmb bu mu jógee France bu muy def retour Sénégal defe naa am na fi ñaari kaw. dem naa seen benn grand ñu koy wax grand avocat ak grand as. waaw dama bëgg nga defal mu ndax dañoo yàqu. bu ñëwee ma defal leen Rock Mbalax dernier combat dañ ko doon dóor muy daanu ku ne gis na ko technicien bu mag la nag waaye nag làmb sorteem buñ koy wax ginnaaw yàlla man la. mbokk yi yéen ngi dégg lool loolu am na solo lool léegi nag dama bëgg ñu dugg si carré international. ndax gis nañu fi sa rapport ak Rocky Balboa boo Rocky Balboa si yow lañ ko xamee ñun bokk la mooy sa rapport ak moom. non Rocky Balboa mun naa la sama frère la maa ngi koy nuyu en passage Rocky Rocky mun naa ne la ñoo ñoo juddandoo ci benn kër ñoo màggandoo fii Colobane waaw li bu ñuy booy nag bu ñuy xeex maa ko doon gañe loolu moom ñëpp leer na Rocky maa ko mën fuuf yaa ko mënoon dama ko doon dóor bu ñu bëgg dee donc sama sama frère boobu. donc euh, nekkoon na Italie après ci la dem Suisse moom laa seet woon Suisse noonu donc euh, du nuyu yu yi Claudio parce que tey Sénégal tamit damay gis bu ñuy wax ci MMA dañuy fàtte Rocky te Rocky lu MMA fu mu toll ci Sénégal yàlla ci loxoom la ko jaarale. moo fi njëkk def MMA. waa parce que moom sens bi mu amoon entraîneur bi ko yoroon bi naan Claudio. événement yi gën a mag Suisse kookoo koy organisé donc maa ngi moom Rocky waxtaan nañ ci lu yàgg mu ne moom il préféré que jël bombardier kon ko mooy moo nekk roi des arènes pour ñu defar image Sénégal yi ñu organiser benn MMA bi nga xamante ni xale yi dinañ ci mën a am sens kon. ok kon Rocky dafa bëggoon jaayale image Sénégal. Rocky loolu moo ko dugaloon ci lii. kon fii ku fi kuñ fiy wax MMA première bombardier bombardier loolu moo ko war a njëkkee bombardier. parce que Bombardier su ma juumul am na benn interview bu mu mës a dégg mu ne moom jàng na MMA 7 ans xaw ma 8 ans mais Bombardier mosoo ko gis mu taxaw ci podium parce que loolu foog nga am link bi maanaam pour tubaab yi xam la dafa jafe mais Rocky kon ko yàlla may na ko nag mi ngi nekkoon ci biir milieu bi te li ma lay wax dama ko waxtaan ak Rocky mu ne ma je préfère jël Bombardier mu jaay image Sénégal comme ça bu loolu jàllee gars yi nañu mën di génn di dem. Rocky lii moo ko ci dugaloon te loolu man xam naa ko ko kon Rocky tu as réussi li nga bëggoon yëpp ak man mii li ma bëggoon yàlla def na ko xale yi ñu ngi ciy gis seen bopp kon Rocky bravo. franchement a à féliciter moom c'est à féliciter Rocky ndax image Sénégal moom bu mu jóg kanam rek ñun la demal kanam léegi léegi seen seen relation wax yéen américain yeex la moo la moo indi seen relation loolu yëpp. waa xam nga xam nga tubaab am na benn côté boo xam ne man dañ ma cee neex tubaab dafa dafa fonk borom xam Sénégal day suul ndaanaan africain sax laay wax du ma ne sénégalais africain mooy toog xam ni xel da am xam-xam moom xam na ko mais du la gëm tubaab ñëw capp-capp fii indi mooy mun a yàlla baa ngoo ko moo fi am dëgg neexul. ñun les professeurs dëgg la. loolu la donc Sénégal loolu moo fi nekk ñaata coach nga gis Sénégal yoo xamante ni dañoo wax ba nekk coach mosoo gis ñu xeex. mosoo gis ñu formé kenn seen àdduna ay spectacle vidéo lan lay wan nii mais buñ la waxee fu ñu jaar du combat bu ñu gagné du champion bu ñu génnee parce que vraiment ñuy natt ah, coach yi waaw coach Sénégal bëri na coach de loolu nag loolu nag gannaaw wax si de ñuy ñuy natt coach yi dafa am solo journaliste yi dara xam nga la moo leen intéressé mbër bu nekk ci performance di daan ñi daw tàll ko micro mais amul benn jour maanaam du ma wax sa journaliste maanaam sit yi fi nekk man gisuma benn site boo xam ne dina topp carrière yu mbër xool fi mu jaar kan moo ko entraîné kan moo ko yor fan la jaar doo ko gis ñoom loolu intéressé wu leen mbër bi na daan nekk ci seen ñi ne dafa entraîné dafa baax xamuñu xamuñu mbër bi fan la jaar xamuñu ko ko teg si axe mais loolu loolu mooy seen liggéey yéen ressource ngeen di dolli fii mbër bu fi nekk champion am na coach ba la ko def gis nga neexul ba neexul mais ancien gulaar yi fi dem yëpp genn wàll gi yëpp dañoo dem ci ngor lu ñu liggéey yëpp lekk ñu ko ci ngoor la man paa ñoo ma yàq ma koy nuyu ama Amady Kati mbay si se Cissé père Ndiouga ñooñu xam nañ kan mooy Body Max xam nga ñooñu ay mbagum làmb lañ ñooñu ay ñi ma ay magum làmb ñooñu xam nañ kan mooy Body Max donc xam nañ ki ma jàngal xam nañ fi ma jaar donc nag métier bi boo leen biggee mu am équilibre affaire yi du toog sa ginnaaw écran rek bu mbër bi daanee nga ne ko waaw du ngi def preuve jàmbaar la xoolal xale bi ki nga xamante ni amul million ki ko topp topp topp topp ba ñëpp di ko dégg koo koy ndaanaan bi bi yóbboo ngeen jëli tubaab bi fay leen ay milliards ñu yóbbu leen saal yi gën a ligg ci àdduna bi ndaanaan baa ngeen bàyyi fii may ko ci ko def laa wax ah, loolu am la solo yow ku amul moyen amoo moyen amoo dara kenn xamu la ma ni la dinaa la def champion ma def la champion man dama am xool di tubaab bi di liggéey fële ba pare maa ngi sant sama borom parce que lii bu ma tukki woon tukkiwaat dan naan complexe la mais man xam naa li xew ci kaw am na mbër yoo xamante ni du ma fi nekk sax du leen tudd ñoom ñi ngi nekk fii ci Sénégal di entraîner ñoo ëpp résultat ñii dama ko ñëw donc man comme que sport nag day dafa yaatu man damaa jàpp ni boo amul combat mën nga dem tenter ji yeneen expérience mais boo amee combat nag koom-koom bi utal coach bu aay nga bokk coach yi tamit seen côté ñuy assurer seen seen seen seen mbir ah. la est-ce que fii nii bëri ne carrément mën nañ gérer mbër maanaam bu bu leen bu ma nee gérer mbër ñu yor mbër bi maanaam benn 3 mois boo xamante ne ñoo xam mbër bi ñooy nekk ndax booy xool fii am na mbër yu mag yoo xamante ne doo duñ daj yenn coono ndax boo waxee defal ñu bañ est-ce que est-ce que mbër bi carrément dina la jox fulla dina la jox fayda surtout côté côté alimentation tamit est-ce que est-ce que coach yi mën nañ gérer loolu yëpp côté alimentation yooyu xam yooyu dafa am solo xam nga nag bu ñu forger ak coté boo xam ci internet yi la toog wala ñu jàngal la gym li si des nga dem ci musculation mottali ko ci affaire yi ñëw taxaw noonu lu la jaaxal day yomb man man dañ ma forger bu ci jukkoo ni ma defa man dem si yàlla si daf ma daan tere yi Habib wax micro yi dafa ma ko daan tere maanaam affaire coaching ku ñuy forme la parce que athlète lu mu yor yor ay millions lu mu bëgg bëgg a entraîner war na fekk ci coach bi mental boo xam ni da koy wóor ni kii ko mën fuuf mooy def différence bi yow tamit ki ngay entraîner boo ko pour mental foo ko jëmee parce que coach yi ñoo war a xam nga tey dinaa ci ñëw dernier combat Mor Kankang bi Mor Kankang combat bi bu ñu koy jàppale mi ngi ko fekk seen dëkk mu def fa ay un mois quinze jours bi mu ñëwee ma ne ko kon da nga am retard il fallait nga accélérer sa musculation bi parce que ki ngay bëreel macha allah am na yàq am na dóor te boo puissant wul doo bari sens ci moom masse bi nga yor baaxul Mor Kankang ci boppam ne ma dañ ko wax na na na gaaw ci combat bi. maanaam day xëy di dem géej gi entraîné ma ne ko Maodo mu ne ma ne ko yàlla mooy may ndam mais état bii nga am nii bëriwul ak kii ngay bëreel gis nga dëgg boobu may nekk ak ñoom tey Mor Kang nga fi ñu toll nii fajar lay ñëw entraînement dama gis benn mbër li may wax mbëri du ma tudd seen tur de waaw damay junj rek bàyyi dama seetaan benn mbër mu ne daay gis ku wax ku nekk ci micro ba nekk ci champion moom nee na daa entraîné ba nekk champion mais dafa wax dëgg bu leer nañ danga am ñoo xam ne micro bii moo tax ñu nekk champion wax ju bari mais bu desee lu du liggéey seen xam-xam bariwul Sénégal nag li yàq affaire yi coaching wax naa la ko da ngay gis koo xam ni du mus a toj fenn ci àdduna musul musul li ma lay wax galas musul créer champion. soo gis mbë mbër bu mu entraîné wala athlète bu réussir ci àdduna musul am ñoom lañuy gën a jox bopp ne ñoo am xam-xam nan leen laaj xam nga Sénégal daa bëgg kuy théorie mais bëggul kuy pratiquer pratiquer dafa metti de man fii benn mbëri yi dañ ma ñeme mbër yi ñemewuñ ma de. ma ngay déggoo ma xam naa ay VIP yu fi ñoo entraîné bay wàccu kay. te nangoo wax sa tur ma non mooy du ma du ma du ma tur. man. man xam nga boo nekkee ci làmb nee naa la salle bi def na 19 ans 19 ans amul mbër bu ma entraîné wul du VIP xam nga du VIP lañ koy wax maanaam ci kaw bu ci suuf ancien gloire yi ci kaw bu ci suuf loolu def na 19 ans man fi may jaar ak sama mbër yi athlètes yi may entraîné nii mosoo dégg max taxaw dugg ci détail ak benn mbër loolu da foog nga nekk ko ci pour nga mën ko. parce que lu ne nga ciy gis lu ne lu ne détail bu ne da nga koy dund ak ñoom mais loolu dafa bokk ñun ci ñu métier. yaa ngi dégg bu baax li ma la donc man mënoo ma tàllal micro ma jàpp mbër di ko wax n'importe quoi du sama cër. waaw mais mun naa wax ci sportivement nga am fu may déggee mais vie privée mbër moom athlète du mu ci dugg. mais gannaaw da nga gis ay yenn mbër yoo xamante ne dañuy na ay 3 séances 4 séances dañ koy def mais loolu baax na si mbër. jàpp naa ne su bokk naa ci mbër yi nga xam ah, ah, manaan mbër yi bokk naa ci coach yi nga xamante ni man sama athlète bëgguma muy daw ci dil déedéet te mbër yi dindal gën a bëgg moom laa la wax mbër yi ma jot a formé sama àdduna dama leen koy tere lu tax lu tax ngeen tere dil mais da ngay diis coup boo ko jëlee sa làmb yàqu nga boo doon def cent kilo kilos cent kilos ngay def mobiliser quoi. ñoom ñii di fay ay millions ne dañuy dem ci professionnels yi tubaab bi ban mbër moo mës a dem Europe ñu koy dawloo ci diin dara xam-xam du loolu de gis nga paa yi njëkk yi lu tax ñu daan dem ci dil saal meli nii foog ñu xaw diis xam nga moo tax ñu daan dem ci suuf si di ne pour am poids bi ñu taxawee mais léegi protéine yaa ngi fii bese yaay créatine yaa ngi fii saal yaa ngi fii coach yaa ngi fi te léegi bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax Sénégal damaa gis benn côté mi ngi avancé bu baax parce que gars yi ñi ngi investi ci salle dugal ci ay millions yu dul jeex loolu c'est à saluer dafa baax ñu koy def ñooñu ci sport bi lañ bokk mais le plus important nañu ut ko ci qualifié musculation parce que coach yi léegi da ngay gis comme ni ma la wax sànq koo xam ni fitness la jàng préparateur physique rax ci misculation man mos nga ma gis ma téye bato naan oh, oh, xaw ma loolu weñ laa xam dugal doole ci yaramu nit defal xol musculation moom rek laay entraîné boo xoolee sama salle amul jigéen góor rek fii entraîné. musculation rek ngay def képp. dama lay jox benn exemple bu ndaw dañ ne Ronnie Coleman moo nekk haltérophile bu gën a mag ci àdduna bi bu fi ëpp doole moom jamono ñu muy toj àdduna ci salle yi la doon entraîné du laal machine. mais imagine toi du c'est pas que dama ne kuy compétir day leer mbër buy compétir nga teg ko ay machine yu bari bu jógee fii dem ci machine bii bu jógee fii dem ci machine bi kooku day desee am mental mais coach bu taxaw teg programme boo xam ni wóor na ko nii bu koy commencer di réussir parce que yenn yenn niveau d'entraînement yi mental moo koy def parce que day metti lépp coach la saali du si dara baax na nag comme genre galas bii dem xam nga rek macc tun jaay taar dem xam nga xool fee fala nice amul fii fii fii doo fi nekk di sinepa ngay dugg fay ci suuf ngay tëdd fii amul lool de. mais si la bokk ay macc mag dogom am na touché Habib Gueye ndeysaan dama daa wax ni dafa am saal góor ak saalu jigéen waaw saal ah, ma ne ko mais père lan mooy loolu mu ne ma fii champion du génn dëgg jigéen du fa nekk du fay entraîné waaw man nag saalu góor laa yor. mais saalu rungaas yooyu saalu. sa pas nag waxuma saal yooyu baaxul de dama ne saal yooyu dafa baax niveau bi loolu dafa am solo mais ñii di compétir nañ leen tegal programme bu amul fenn ñu koy entraîné loolu mooy def différence bi parce que man man li may wax nii yëpp xale yi di ñëw di def musculation ak coach yi xale yi di ñëw man ñooñ lay waxal nii xale yooyu war nañoo fexe ba ñuy taxaw jiital xam-xam mbëri jël ay xaalis bu bari di leen fay def naa nit fa la war a waxee man foofu laay waxee ko waaw. gannaaw que yow gis nañ ne am nañ ay am nga ay contrat ay partenaires yu bari Europe la mu tax demoo Europe toog foofu noonu si seen saal yi te gars yi proposé na la ko ba sonn la moo tax nga préféré ñëw fii nii mooy li nga doon wax rek. moo lu ma lay wax rek xam nga boo amee xam-xam mënoo am complexe mënoo am kenn Sénégal. damaa gisoon musculation ni mu fi ni mu fuy sooxe te man alalu alalu Habib Guèye laa maanaam man man man doyen yi moom musculation Sénégal ñoo ma formé man waruma yàq loolu ko maa ngi lay junj léegi photo bi ngay gis fii ay Père Birahim ñoo nekk fii ci kaw photo boobu Serigne Thiam da ko indi ba fii na ma yow yaa jël relève bi Habib Guèye li ma déy ñi mee ma ko wax dooma mi ngi fii jili Sénégal booy wax dangay ngay leeral dooma mi ngi fii jili maa ngi lay nuyu à moom xam na ni papa man la gën a gëm ci ñu mu ñu mu formé te li ma lay wax nii père Mbaye sa xam na ko parce que xam na ni ma ma leen ak Habib Gueye donc héritage boobu ma donn mënu ma dem di ko jox tubaab bi xam nga baax fi may waxee waaw li ma téye fii dafa dafa dafa dayaar waxuma nag du ma tukki du ma def non noonu non mais dama bëgg ñu xam ni senegal xam-xam mi ngi fii man dama ko yàgg di wax mbër yi ngay gis fii boo duggee àll bi fi sëriñ nekk dañ koy fekk foofu lan moo tax ñuy def xam-xam ba kon fi ngay fekk ci xam-xam nga koy fekkee mais mbër yi fi ñuy contacté dafa ligg ligg siwul de ligg si si bopp lay ne ah voilà. benn benn benn taxaw sell bu ndaw si combat ñetti combat yu am yu am yi si état foofu mu mbër yi instant bu la doon wax lu coof rek. en tout loolu laa loolu doon wax sànq loolu laa doon wax sànq parce que mbër yi Modou Lô Modou Lô Ama seen état de forme boo boo doon wax looy wax waaw moom laa lay wax du may du may bëgg di dugg ci détail yooyu waaw mooy li ma lay wax rek du may bëgg di duggati ci détail yooyu parce que Sénégal sama sit amul ci mbër bi ma waxul ci ay at ci ginnaaw kon bu mu fiy waxat te ay répété lay nekk amul mbëri mbëri boo fi tudd nga dugg sama site ba di match te gisoo mbër bi ma la wax li mu war a entraîner ak li mu war a moytu waaw ma kon ñoom dañoo jàpp ni sooy wax da ngay ut ci ñoom promo da leen di tege ne waaw fii combat boo ma laaj dama naan le meilleur gagne point doomu fi nekk naan mbër bi nii nii nii. waaye nag même entre léegi entre nit muscle long ak muscle court. maanaam mbër bu gàtt ak mbër bu ñool seen méthode d'entraînement ak nan la ñu war a entraîner. Habib Gueye li ma jàngal muscle court kooku trois mois mun na ci am lépp lépp laa wax lépp waaw mois ferme mun na ci am lépp muscle loo mois la pour mu génn ku njool ca kaw génn ñu gis yaramam bi yëpp toog 6 mois la. léegi looloo tax musculon bu amee doole dëgg day ëpp doole ndaama parce que ndaama bi 6 mois mu jot boppam kay kay 3 mois mu jot boppam musculon 6 mois lay jot boppam kon du benn quoi waaw du benn lool du benn te sport bi fii nag moom xam nga l'anatomique comme ni ma koy waxee rek donc jël mbër jox ko 200 kilos naan ko squat ko dafa am préparation booy jaar ak moom. ok doo ñëw rek jox ko 200 kilos la ko. bëri la moo gaañ. am bëri bëri nañu ay bëri blessure li ma la fi wax bi bàyyi ko xel. loo war a def ci 3 mois nga ni dinaa ko def ci benn 2 mois wala 1 mois da ngay blessé. ok kon entraînement dafa ja dafa am fooy A B fooy commencé. Ah, ay code ay code la. am na ñun coach yi fan lañ mënantee ay code. ñëwal ma si code yi coach. ma ko wax gars yi dañoo gaaw dañuy tricher. waaw mais juñu ba si tuuti rek code yi. Ah, ay code la de. ok non ay euh, musculation ay euh, mbër boo xam ne dafa war a préparer trois mois combat yow nga bëgg a def ci benn deux mois mbër boobu blessure da ko yomb da ko yomb moo tax ñi am taay mag yi ñoo am taay yu mag yi xam man dama dama dama yàpp la degeer ni muy def nii mun na bëre ba bàyyi bëre ñi koy néewal doole man sax damay génn ci détail yu bëre bee xeex ak yooyu ñu ko fii néewal doole du bari ndax lan mais day entraîner tout le temps xam nga man bu may tudd man damay tudd ñi nga xamante ni vraiment mun naa leen tudd benn côté mais moom ni muy entraîner nii Eumeu Sène lu ko bàyyi ci làmb doo ma ko wax. laaj la yow rek la ñuy déglu. Eumeu Sène li mu waroon bëree na ko Eumeu Sène du fi bëre li mu bëril woon mais mun na fi jël doole di dolli ci ay doole maanaam Eumeu seen boo ko gisee saal lay entraîné lu ci ëpp moo tax toujours day day day nekk nit boo xam day rajeunir gisoo ko xale bu ñëw mun naa mun naa naxante ak yow waaye mbëri xoolal mbër yi fonkul musculation seen carrière day teel a jeex te ñoom ñëpp maa leen mag man dugg naa sama 50 ans du ma xale. non grand ba li nga wax 50 ans. yow sax yow yaa gën a taxaw hélas. képp kuy takk ngemb ci làmb maa la mag man bu ma demee ba mel ni su ma nee coach laa dañoo war a xam ni coach laa. damay kele yow jox sa bopp daal. damay entraîner duma ko café damay entraîner. je m'entraîne man des fois dinaa jël poids yoo xam ne di ko squat mbër yi dañ naan ma danga nga war a bàyyi entraînement mag fii ak yaa ngi entraîner ñun dañuy sonn te effectivement. damay jël charge yoo xam di ko escouade nii booy danaa ma da war a bàyyi entraînement yi. ngay leen du bàyyi. xam ngay sport moom gaa yi dañ dul bàyyi xel ci benn mbir boo xoolee même footballeur yi bàyyi yu bàyyi football bu ñu bàyyi football ba année bi dellu si da ngay gis ñoo xam ne da ngay gis seen biir yi génn seen yaram yi génn parce que sport doo xëy rek bàyyi ko tout à bi da ngay maintien mais fii Sénégal yu gën a yàqal mbër yi lu leen gën a yàqal mbër yi bu ñu commencé am ay millions bu ñu bëree ba pare pare nañ ci entraînement bi de léegi dañ naan dañuy maintien amul maintien. waaw da nga see war a tegaat. ñoo xam la mooy maintien saa yoo xëyee nga dem entraîner waxuñu la nag comme boo amee combat ni ngay entraîner noonu nga war a entraîner wax ma lool de mais saa yoo nga dóor benn séance 45 minutes bu baax après tu te tu ba pare ngay moytu suukar bi lekk bu niin bi loolu loolu noonu naan hygiène de vie mais du question de ginaar kilim yeeg. étage bi loolu di hygiène de vie de ñu koy noonu loolu di hygiène de vie hygiène de vie mooy boo xëyee force danga war a jóg fajar nga dem entraîner soo ñëwee xool li ngay lekk comme saa yaram bi nga yor du du génn maanaam biir bi du génn yenn yi doo ci dugg léegi nag toog boobu ñuy toog noonu ba am combat mbëri bëri moo leen di gaañ te bu ñu bëree ñëw day ñëw bu ko forcé waaw bu ñu bëree ba pare dañuy dem toogaat toogaat boo nga xamante ni que tey moo yàq seen yaram bi nii mooy yàq seen yaram. ah sama gars yi gis waxtaan bi solo de waxtaan am na solo lool mais gannaaw looy tàggatoo. waaw xam naa ne lu lu duuf si nag bi yëpp xajul si cin li comme ni ko gars yi di waxee. man ni ma koy waxee rek ni may tàggatoo mais bépp mbër bépp athlète bu mu mus a jaar sama saal maa ngi lay maa ngi lay sant di la gërëm bu baax parce que bu di match bi dafa yaatu donc kilifa yi nga xamante tey ñoo fi nekk di entraîner ku mel ni commandant Thioune adjudant Daouda Saliou ah, Lajor ah, ay kilifa yoo nga xamante ni vraiment ñi ngi ñëw fii nekk nekk police di entraîner fii ak ah, Ibrahima nekk Zoyzen donc euh, ma leen di remercier bu baax euh, di leen remercier bu baax Obé nekk Gambie donc euh, ma ma ma ma am am plaisir bu bari di di ànd ak moom di ànd ak ñoom ci sport bi te di wax man samay wax bariwul parce que man samay wax du neex damay wax dëgg te yàlla tax waaw di di tënk wax damay tënk fi ñu toll nii tënk bi mooy Ngila Wari Suri yéen ñi nga xam ne yor site yi da leen def ay recherche bàyyi lu xew li ngeen ne ci parce que loolu day rey day rey sportif yaa ngi dégg leneen li mooy ah, xale yi nga xamante ni tamit ñoo nekk ci métier bi mooy coach yi man ñi nga xam ne maa leen féete mag man benn secret rek laa leen di jox tout le temps day leen entraîner da ngay am xam-xam parce que boo bàyyee entraînement rek sa xam-xam taxaw na donc loolu maa ngi koy ba pare di nuyu sama sama xarit sama coach coach Moussa donc euh, moo yor boxe bi ay Cheikhou Dieng borom borom États-Unis Cheikhou. Euh, coach nga ne ku def lan. dama ne athlète bu fii yàlla dimbali ba nga dem am ay millions mu digla torop yàlla lafa ci cat am ay oto am ay kër sa coach du dugg ci super. wara këram yëkkati ko étage dafal dafaloo ko li ñuy defal coach. cuune nga cuune nga cuune nga complexe nga ak ku ko mën a def nag. parce que coach mbër yi bari seen seen retraite du baax na ngeen ma baal nag xam nga dama tàmmu mbër parce que li may nekk ñoom moo bari mais mun naa jël wax ji na ko athlète athlète yu bari seen problème mooy des fois ax da leen di jàpp seen bopp xam nga man bu may wax du may bëgg jël wax ji rek taf ko ci mbir mi athlète laa wax xëy na mbër yi nag ñoo ci ëpp ay détails yu mel noonu munoo di gagné ay millions sa coach du dugg ci ay ay ay super boo demee këram mooy loolu ba pare nga bëgg a taxaw di cuune nga coach da nga koy toppatoo li ngay am da nga koy bokk ak sa coach man xam naa li may wax lu mu doon man sama athlète day nekk fu am solo sama doom yi seen jàngi damay xoolal sama oto laay jël donc 5 heures du matin yóbbu sama sama athlète pour sama liggéey ñoom bu ñu bu ñuy jàpp ni loolu may def dama leen bëgg moo tax ñu leen koy def professionnalisme moo tax su ma liggéey ba pare damay def réglage bu jëree jóg quatre heures quatre heures du matin damay jóg bu jëree jóg cinq di du matin damay jóg sama doom yi damay obligé jël taxi ñu dem man ma jël sama oto taal dem yóbbu sama appel yow comment fais-tu loolu may daj yooyu yëpp mais ñun ay million leen leen investir ci booy man caat bu booy bambara lu mu am ci àdduna ci sport ginnaaw yàlla man la kooku dama ko maanaam ñun maanaam forcé bi ma lay wax Euh, diggante yow bu fekkee da ngay def ak athlète un mois wala deux mois wala trois mois moment boobu na nekk sa doom loolu mooy professionnalisme bu fekkee weer rek ngeen di nekk weer boobu danga dala war a jaral mu nekk sa doom ndax pour mu am ndam mais nag chaque jour nga dégg nombul laa jantal laa te bu xaalis génnee nga mel ni golo buy lekk mango loolu bàyyi leen ko te ku ko ciy def balaa ngay bàyyi làmb danga ko gis parce que mun nga am tuuti heure mën nga am lu bari doo heure lan mooy def ak dafa baax mbëri lañ xool li ñuy def bu baax a baax a baax yow commencé tul ci gagne million yow ñiy sonn ci yow toujours boo ñëwee dóor leen benn dix mille quinze mille ba pare ñuy kontaan nag wala combat jot nga ñëw joxe der ku ci nekk di jubilé loolu du affaire coach man moo tax macha allah lépp dama ko ñafe teg waaw moo tax nag mooy li ma la wax rek des fois ku ci nag changé leen seen comportement di wax dëgg te yàlla tax bañ a far athlète boo nekk ak moom da nga koy wax dëgg waaye coach boo xamante ni may ma dàll waaye booy sama kër amul dépense doo coach man su may lebi sax sama sama sama élève du ko xam su ma lekkul sama élève du ko xam mais coach boo xam ni ñaan daal ñaan tubay lépp xaalis doo coach coach dafa am ay ay ay réalité affaire yu jukko la affaire yu la affaire xam ni ngay defee la pour pour koy nekkal mu xam ni kilifa nga loolu dafa am solo affaire du dugg ci saal bi rek laal weñ fii kii dafa ay déedéet moom bu demee tëdd day xam ni kii noble la kii li muy def dafa ko mën kii suma ma caaxaanee daf may dàq li may wax nii yëpp dara taxu lu dul complexe bi moo bari Sénégal galas sénégalais moo complexe Sénégal bu gisee tubaab rek foog na ni lépp mat na ñun dañoo jàngal lii depuis bu ñuy xale nekk ci xoolal 19 ans maa ngi tëju galas waaw man bu ma bu ma mënul préparer mbër 45 minutes dong dong nan nañ bàyyi làmb waaw donc maa ngi remercier yéen waa Equivox ñi fi ñëw ñëpp donc di xam ni sama émission nii la du gaaw mais day tàng donc xale yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci musculation yi nekk xale nekk ay coach li may wax ni jël leen li ci ëpp solo ngeen koy demee da ngeen koy gis. dañu leen di sant bu baax ne tey doole ay ñu la ko a am aar